تركت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لنا mboole murit yi déglu leen ma yee ci biir Seex Anta bu leen nelaw yeen li may nelaw nelaw du tee yeete ki may gëlëm gëlëm cheikh sidi al moxtar mbàkke maam cheikh anta mbàkke borom daaru salaam ak gaawaan moom sëriñ mor anta sali mbàkke ak soxna anta kandi mbàkke ñu gën koo xam ci soxna anta njaay moom ibrahima awañang moom maam maaram maam cheikh anta ak sëriñ touba cheikh ahmadou bamba xaadim rasoul ñoo bokk wenn waajur wu góor tey mooy bis bi ñu koy fàttaliku ak di ko ca ñaanal ca daaru salaam muy bis bi sëriñ bi jóge woon ca tukki ba ba ñëw daaru salaam daje ak maam Cheikh Anta ci atum 1866 la gane àdduna ca Poroxaan waaye juróom Serigne Mor Anta Sali Mbàkke moo ko dalal jàng ginnaaw bi jànge na ci Serigne Dame Abdourahmane loo ak ku ñuy wax Serigne moor sekk magam Serigne Momar Diarra itam jàngal na ko xam-xam Serigne Touba moo ko yar def ci moom lépp mësula tàqale ko ak moom moom maam Cheikh Anta Mbàkke boroom xam-xam la woon ragal yàlla lool nekkoon ab yarekat di ab liggéeykat di dimbali nit ñi. ci bépp ajo ku bëggoon Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim la fonk ko lool di ko liggéeyal di ko jox ay addiya di ko siyaara ji ci réew mi ba sax ca bitim réew fekk na ko ca yéen Jolof fekk ko gànnaar ba fekk ko Gabon ca tukki ba moom maam Cheikh Anta Mbacke noonu la fanka woon mboolem ay mbokkam rawatina njabootug Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul gi ci atum 1886 bi Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul sancee Daaru Salaam ñaari at la fa def boole dëkk ba ak taaliba ye lépp rafaatale ko maam Cheikh Anta ci atum 1902 bi Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul jógee ci tukkib géej gi ba wàcc Ndar jaar fu baree bare ci réew mi ci la ñëw Daaru Salaam fekk fa maam Cheikh Anta mu ganale ko fa ngan gu rëy bis boobu bi mooy bis bi ñu koy màggalal daaru salaam jaaraama maam si xamte yaa gëm bamba yaa taaru yaa tabe te gëm yónneen di ci atum 1928 ginnaaw ba fi ku baax ki Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bàyyeekoo maam Cheikh Anta Mbacke bokkoon na ci ñi àndoon ak sëriñ Serigne Fallou Mbacke Serigne Mbacke Bousso ak ñu bari ci kilifa yi dem aji Makka ngir mottali Serigne bu mag bi yéeneem ci diggante 1929 ba 1935 la ñu génne woon maam Cheikh Anta réew mi yóbbu ko Ségou ca Mali diirub juróom-ñaari at sabab la di ay tuuma yu Blaise Diagne tegoon ci kawam ngir mere ko li mu àndoon ak Ngalandou Diouf di ko jàppale ci atum 1941 la maam Cheikh Anta Mbacké wàcc ab liggéey ñu denc ko ca Daaru Salaam yàlla ñu ko yàlla dollee fayal te tas ñu ci barkeem maam Cheikh Anta yaa bari ay ndam ca bari jaloore yaa dem romb géej gi romb toore yaa ji umra dem minan dem arafa yaa dem safa أغمر ورتا أغمر ذنبا شعرفي مدينة المنورة مني فلا قك الأرعام وشاورا أرعام وشاورا سلكت ما كان لي بقي مبدخيا